tournoi bi dama ko organiser juste pour promouvoir football féminin si dëkk parce que Sédhiou soo seetee métti na métti boo xamante ne pour nga am sa ay joueurs sax problème la te aussi dinaan parent yi aussi ñu jàppale ñu parce que tey football bi toll na foo xamante ne yaakaar naa ni suñ ci jéemee def suñuy jéego rek seen doom yi dinañ ci gis leneen ak leneen loolu la ñuy ñaan yàlla te aussi dina autorité Sédhiou yi ñu ñëw jàppale ñu surtout ligue bu Sédhiou parce que tey ñun tey jii soo gisee tey ñu nekk fi ñu war a ne ñoom ñoo tax kon yaakaar naa tey lépp lu ñuy def rek ñoom war nañu représenté fii football football même bu dul football féminin ñu représenté ligue bu Sédhiou mais gisuñu kenn c'est très honte yow nga ñëw nekk jigéen ngay daan sa doole ñëw pour développer football féminin mënoo sax gis sa président ligue sax si dëkk bi ci sa ci sa sa tournoi et pourtant bi mu doon metti ñun ñoo fa doon taxaw kon tey yaakaar naa ne buñ bu bu man tey su ma taxawalee ne ko tey maa ngi taxawal benn benn benn tournoi te aussi ma invité club am club am mënuñoo ba déplacé wu ñëw Sédhiou man loolu rafetlu ma ko te soo gisee ma def ko parce damay ne man ak Marsassoum benn lañ pour pourquoi pas ma war leen invité mais xëy na peut-être noonu lay ko yàlla tuddee di ñaan yàlla déwén mu gën ko yokk te xam naa incha allah rabbi dinañ ko yokk. doléance yi may lancé mooy surtout suñu autorité Sédhiou ngir yàlla ñu ñëw jàppale football féminin. tey football féminin bi c'est pas parce que Fan Mata moo fi nekk rek waruñu mën a ñëw man tey soo gisee may xar sama tànku tubéen pour football féminin bi développé parce que dama yaakaar ne man en tant en tant que joueuse ancienne joueuse yaakaar naa ne te sëy bi war na mën a développé ci football féminin man ci loolu laa ko visé kon nañu jàppale nañu jàppale ñu ñëw aidé ñu surtout ci côté financier ci côté ci côté bépp nag ñun xeebuñu dara xam nga dina parents aussi ñu bàyyi seen doom yi ñu ñëw ci football bi parce que tey FIFA a investi beaucoup d' argent pour le développement du football féminin tey jii nii am naa ay joueurs yoo xam ne maa ngi leen yóbbu équipe nationale ñu ngi dem di ñëw comme le cas de Roxy Kandé pas mal de joueurs U20 U17 daaw jé daaw rek yóbbu naa fi 3 à 4 joueurs nee na seen wërsëg moo si nekkagum parce que talent bi xaw na des tuuti parce que ak manque de d' infrastructure yi ñu fi dajal ak manque de moyens yi parce ko ñu jàppale xam loolu moo ñu indil yenn jafe-jafe bu ñu demee équipe nationale dañ leen di delloo.